kon ñu ngi leen di nuyu. maa de presse. Ah, neex. ma ne la neex neex te te commencé guñu. ah commencé guñu. Mm-hmm. mën a wax si Aïda Samb. Ah, une excellente chanteuse. boo xam ne nekk ne dafa bari euh, potentiel bu am doole Aïda foo ko laal rek mënee na ko. mën na traditionnel mën a moderne. vraiment mën a registre yu bari artiste bu mag a mag a mag donc euh, artiste bu nga xam ne que ni Sénégal war na nu mën a compter ci moom pour euh, jëmale musique bi un peu un peu partout. voilà soo ko mu ngi génn album album album boo xam ne mu yëngal dëkk bi euh, mu ngi génn album album tango noonu mën a wax album bi. ah album bi moom pour man c'est album yu ay décembre yi dàq si la bokk. xam nga Saara Ba daf ko génne woon mu nekk benn benn album bu explosé album bi pour man peut-être pour man dafa mel ni que ne sénégalais yi ñi ngi doog a découvrir mën wayu Aïda Samb parce que les thèmes yi nga xam ne dañ ko abordé ci album bi dafa nekk ay album bu nga xam ne ne dafa nekk thèmes yu nga xam ne ni que dafa intéressé nit ñi au-delà de ça euh, la composition les arrangements les textes, tout ce qui tourne autour de, de l'album est vraiment extraordinaire. Vraiment, album, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de félicitations. hein, concernant le travail qui a été abattu par l'artiste par le producteur par les musiciens euh, par euh, tous les gens yi nga xam ne ne participer nañ rek à la réalisation de de ce chef d'œuvre. voilà euh, présidence Aïda Samb sur la scène musicale. soo ko doon analyser noo koy analyser elle est bien présente maintenant ce qu'il faudrait faire moom mooy kenn insister de telle sorte que que qu'elle soit beaucoup plus en live. c'est-à-dire que di def beaucoup plus de musique euh, live di def ay spectacle vivant un peu partout te loolu ci la ñu nekk pour organiser ko ko pour que elle soit beaucoup plus présente parce que faut pas oublier que aussi euh, année Covid bi muy ñëwee deux ans dafa dafa break musique musique un peu partout donc moom tamit yàlla def ko ci diggante bi mu amoon fi mu am borom kër donc loolu yëpp ce son des choses yi nga xawoon na xawoon na un peu retardé un peu euh, disons euh, activités donc on a repris avec un album bi nga xam ne que ne ça va nous permettre également de continuer le travail bi nga xam ne entamé woon nañ ko ak moom depuis très très longtemps euh, un peu partout dans le monde loolu lañ bëgg. a ngi presque indépendance te te mu ngi annoncé album am te te aussi année bi moom année moom moom bi moom incha allahu rabbi suñu fi yàlla bàyyi ak jàmm salaam ñëpp bàyyi ñu ak wér ak gudd fan ñu tal ko te fekkee ko vous allez voir des productions yu nga xam ne ne que ni mosu leen ko gis ci Prince Art beaucoup de production artistes yi ñu yore que mu nekk artiste bu mag xale yi ñu yore tout le monde incha allahu rabbi on va s'occuper de génn leen kii sax lool moom mooy sunu challenge ju année bi ñu ngi koy commencé looloo taxoon looloo tax à chaque fois euh, dañuy génne benn affaire bu bees teg ko sur le le marché et je pense que ça a commencé depuis quand même euh, vers euh, fin fin deux mille vingt deux bi gis gis nga woon beaucoup de singles cette année on va on va sortir beaucoup d' albums. ñu may leen ko mu consommé li nga xam ne moom